bisimila ci ëttu yëglekaay yeeg yéen kaay yi def lu baax ci point comme seen mbokk seen xarit Cheikh Beye moo ñëw di fesal li ci ëttu yëglekaay yeeg yéen kaay yi tey nag la lundi 21 août ci atum bi nga xam ne moom la nekk bokk ci li nga xam ne moom moo ci gën a daal di coowal dara yi nga xam ne daal booba tey ñu koy coow ci mboolem réseaux sociaux yi ak mboolem grand place yeeg ñiy dund course ñoom ñëpp daal ñi nga àndandoo coow loolu daal mi ngi tëj cob bay te daraa ko war a lugul ñu ñaari fas yi nga xam ne daal dañ leen caa taqal wala boog dañ leen caa tuumal ne daal dañoo am doomu jàngoro bi ñaari fas yooyu ñan lañu Auguste la ak keneen ki nga xam ne moom moo di Tawfekh ndax seen i borom jot nañ ay lettre bu leen war a xamal ne seen fas yi dañ leen dàq loolu nag mooy xini ne ji jaaxal ñi nga xam ne ñoom ñooy dund course en tout cas ñooñee moom jotugul benn kayit boo xam ne wane na le mandarga boo xam ne fas yi dañ ko war a dàq wala lañ ci jël ak lan responsabilité lañ ci jël kiñ ci micro moom di Libo Serigne si mom li lañ wax mom Libo Serigne si mom mom neena mu na mun ben fas wala mu wax ken du dàq ben fas wala mu ci jël ben proposition ndax bu ko def ben yoon ndax dafa xam ni këyit bi wara doxé en tout cas moom yàgg na ci lolé mom doomu malik ci suuli ji li wér wër dal mom neena mom na jël ben responsabilité dàq ben fas bu dul këyit rek mo meuna a fas bu dul loolee du dàq ken ta article bi dana ko xol ci ban article la nek bu ko defé ñu meuna a wala ñu meuna fay li wér wër dal mom ki nga xam ni mom mo effort du docteur Alphonse Sène moom docteur Alphonse Sène moomee daal ñu bari joxoon nañ ko baaraam baaraamu tuuma ci mbir mi nga xam ne moom moo nekk li wér te wér moom daal daraa ko ci ñóoru li nga xam ne moom moo ko ci ñor daal buggul lu dul daal ñi naan CNG bu Cour du Sénégal ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon di président CNG monsieur Cheikh Tidiane Niang ñoom ñooñu daal seen diggante la bëgg a xajamal bu ko defee coow li ne cobbay ko la woon daaw mu jàll ne pour xul jaar ci suñ suuf daal di mën a jël CNG bu Cour du Sénégal daal ko yor lii daal Sénégal ci la ci la sa xalaat fii la ñu yemandi bàyyi bonne continuation à vous à vous Dakar